le 9 mars 2024 mbokki Sénégal ñu ànd ak Ndiambour production Ilimane Lo nekk ca bopp ba indil ñu grand combat bu mag ñaari espoir ñaari ndaanaan ñaari jàmbaar ci diggante Feugeula bu Ngor ak jeex Jam Ilimane ne loolu mooy première édition drapeau Cheikh Kanté ministre suivi du PSE mu am taxawaay bu mag bu mu am ci région bu Fatick combat spécial bi war a dox ci diggante Ardo ak Bib Diop première édition drapeau Jaraaf Doudou Ndoye bu Yoff Libidor bu Passy dina fa jàkkaarloo ak Bébé Balla Junior drapeau moom madame Ndeye Ndira Faye ba doomu yoof dina fa jàkkaarloo ak mbay Vandam première édition drapeau Iba Mar jong Ibou Diop numéro 2 jàkkarloo fa ak ci drapeau Cheikh Ami Gueye femme d'affaires sponsor yi gunge Ñambour production ci bës bi bokk na ci Clara Global Business indil ñu diwlin cadeau mbokk yi amateurs yi ñu ne dañ leen di yombalal dugg bi supporter 2000 francs amateur 3000 francs loge officielle 5000 francs kon bis baa ngi noonu mbokk yi tat bi benn la le 9 mars ci ñu ànd ci ak Ñambour production waa Zoss dinaa ñëw ci loolu da amoon sa combat ak Ada Fass nga dem États-Unis di ko waajal da nga amoon combat ak Ada nga dem États-Unis di ko waajal ci loolu sa waajur bu jigéen dëddul ci sa ginnaaw nan nga nan nga nan nga yógee lu metti la Lamine loolu moom lu garaaw la parce que fii laa jógee dem États-Unis dafa 10 jours rek ñu naa mère bi génn àdduna quoi affaire bu metti boo ma ne nit ki yaa koy bàyyi mu nekk ci sagom normal feebarul jàmmatul dara donc mu nekkoon lu metti loo xamante ne dund naa ko quoi lu metti metti ba bëgg a ñibbi si gars yi na ma noo toogal parce que Sénégal moom xam ne koo ci xaar duñ la xaar balaa ngaa jël vol di ñëw ñene denc nañ de même que da ngay demaat di recevoir ay gan wala nga toog dem ci xabru bi xam naa ne garga départ dem moom tamit vraiment fekkewu ko moom tamit donc duñ amul xaare li ma la wax mais recevoir na ay gen moom tamit dem ci xabit bi ñaanal maire bi loolu lañ ci amoon ndax man moom bëgg naa maire bëgg boo xamante ne su ma demoon moom su ma fekke woon foofu balaa ñu ko dencee dinañ daj lu ne parce que boobaa sax naa ne c'est pas ay autopsie yi kenn xamul mais gis nga yàlla nu mu ko dogalee ñu ngi de génn génn àdduna gudd laytul xajri ñu denc ko amaana man su ma fekkoon sax duñ ko denc hmm? peut-être duñ ko denc moment boobu noonu non si parce que ku nekk ak dimension bu mu toll kon demee quoi mu nekkoon lu metti non dama tëdd nii di nelaw ñoom Papi Souré ak ñoom Malick Diko sama booy romb gis ñi naan oh, oh oh ñii di ma xoolaat may nelaw mais maa ngi jóg maanaam <tsk> am na lu xew de ñu ne wuy téléphone téléphone eh, ñu ñu seen waa ko ñëw woo depuis sànq rek sama bi na rës xam ne jàmm amul wallaay te Tafa moom xam nga ne moom moo nekk Italie moom moom Sadik la moom mooy déclaré nouvelle yi moom moom yoonam nekku ci moo ma ko wax quoi affaire bi nag daf ma jàppoon quoi jàpp na ba xamante ne vraiment mën naa ne sama bi dama ko mel ni ku ma mais après euh, ma toog benn jour parce su ma timmee lekk damay xiif mais damay bëgg a lekk mais lekk bi du ma affaire bu métti nag mais ba jékki-jékki benn jour ñu mel dañ ma ne dañ ma dañ ma jox ñaari option xëy na loolu nag ku sa waajur dund mënoo ko xam ko ñu ne ma genre da ngay misère mère bi ba topp ko lu yàgg du lu du ci diir bu gàtt quoi walla waa ilaa mu jox la motivation sa àdduna nga nekk guerrier quoi yaay xool nag un des deux parce que ki génne àdduna am na noo koy kiwee rek am noo koy kiwee rek doo doo doo leen rawante lu yàgg waaw cas yi bëri ñu fi waaw. waaw ma toog gérer xam ne lii la yàlla dogal te comme yaa naa njaboot aussi war naa teete njaboot ba si kanam loolu la rek mais lu metti la woon daal. ñu bisee yàlla xam ne ne. <laughs> lamin ci aéroport bi laa jóge wàcc ci yi yaa ngi may dégg lu xawa aéroport laa jóge ak say valise yëpp dem ci armée direct jaaruma kër gi ndax mënu moon gëm affaire bi dafa ma dem ba tiim bàmmeel bi soo ko xam ne ñii lay demee waaw voilà kon bàyyi na vide non du day waar ba ñëw ba dugg kër gis néeg bi vide yooyu bi nga xam ne wàcc àdduna daal dafa yee moo tax moo tax chaque jour maanaam ñi seen waajur des si yàlla na yàlla may na gudd fan ak wér gu yaram billaahi parce que waajur am na solo si doomu aadama quoi. am na lu loolu am na lu mu wàññi ci sa préparation sa diggante ak Ada Fass. Ah, mais bien loolu neexul tamit neexul loolu bi nga soog a dem États-Unis noonu ñu gis ay vidéo ñu ni eh Zoss ah, ne lii bu ci continuer moom. non moo tax xam nga mënoo expliquer parce que bëri loo xamante ne su ma ko waxee rek day mel ni du yëfu jàmbaar ndax combat bi maa jël taxaw ma ne combat jàmbaar yi la. combat militaire yi la combat Baye maa ko wax kon lu métti ma da ngay def yëfu Baye Fall ak fi militaire xam nga fexe baax yëfu Baye Fall ak fi militaire ngay def mooy maître bi gaañ na moo continué accidenté na moo continué ma dugg esat ñu dóor ma barre de ba nii nii su may entraîné sama épaule bi day métti ak yàlla métti xam na loolu di devant CNG ñu koy gis yëpp ma continué def naa malaise. deux fois balaa combat bi barke alxuraanu karim ci avant combat bi avant combat bi quelques semaines avant combat ak veille combat billaahi wallaahi wataalaahi bañ naan kii tuut presque pare na ma jógaat te noonu laa dem bëri quatre heures matin laa tëdd laa la asafulaa euh, quatre heures matin bi ma jógee dalal jàmm maa ngi jógee dalal jàmm guddi gi yëpp neloo ma dalal jàmm ñu ma libéré quatre heures scanner am na bi rajo yi génne lañ dem di yàq der dara dalu ko. billaahi wax leen neex mais bàyyi naa nag yàlla bi rajo yi génne rek am na ci lañ dem wax leen neex mais scanner bi génn ba CNG jël scanner bi ma dem Fann docteur ne ma amoo droit bëri ji ma ne dafa dem certificat ñu ne mun leen def certificat médical parce que ku ñu defee certificat médical dafa war a fekk ñoom ñu libéré la xam nga li ma ko baax ci la ñuy def certificat médical mais libéré wu ñu ne bëgg a def certificat maa ne kon bàyyi ma dem bëri loolu laa enchaîné nelaw ma wala dëggal ma 24 heures ba midi. ba midi ba midi ñëpp waaye dëgg ma la da nga def benn vidéo moo tax taxaw dara ma dajeeg Balla Diouf ci biir hôpital bi. mu indi yaayam ndeysaan xam naa yaa na ko defal wér moom tamit mu indi yaayam foofu yaa ngi dégg. minu bi ne góor a soog woo ma ma ne ko booy ma ne ko maa ngi def loo mën pour rëcc ci loxo docteur yi. te docteur yi billaay ba léegi nii waa Fann dañ ma mere ñu ne risques yi sénégalais af mais fii fii ko fi ku fi xoos sax si làmb ji du bëre man rek maa fi jël initiative bëri ci jour boobu pour sauver jour bi mais nag yàlla xam na sacrifice bi ma defee ba bëre yàlla suñu ba xam na ko pourtant nag joué na sama carrière bi joué ba baax sama xarit mais bien sûr parce que combat bi nekk lu mu waroon bëre dama war a jël sama temps la dem faju ji ba dem mu ñëw bëre Lamine loolu moo logique ba lolumoo dégg loolu moo lay Lamine Lamine États-Unis gis nga fa tey may soo ni ma toll ku ma jàpp dama lay damm booy faa sa yow ñeneen sos li ñu tiitoon yëpp mooy état mi indi xaañ bi xaañ yëpp ñoo ko tey billaay parce que xaañ boobu weñ boobu dana sama kanam fu ma jëm mais ce que tamit bokk na ci euh, yëfu responsable à 24 heures du nga yokk ay moto tamit bay daan non non ñun yàgg nañ def loolu am man tamit balaa maa am ci moto laa njëkkee voilà avant maa am moto dama doon dox ante dëgg voilà foo bëgg a dem da nga dox wala nga jël rapide ba rapide am bi ma amee scooter am ay siyaawo eh, am scooter sa waay scooter ko dama xëy mu ñi may tere scooter sax mais fay combat yoo xamante ne ay urgence yoo xamante mais man station laa yor gis nga ko. gis naa ko indi voilà moom laa indi si làmb ji léegi sama oto jox naa ko boy boobu dem nañ doom benn affaire bu ñu doon jëli caara yi ci lañ ma kii wooyee paa boobu dama yor da nga fàtte mënul laay sama fàtte rek moo sama benn bu yor histoire na ko ñu dem boobu ñu ngi répété tous ba pare ma départ affaire yi dal ma. dafa nga waaw bu am doole. xam naa loolu nag moo gën a kii parce que gisatu moon quoi après may coupé benn taxi nii après daanu heureusement jaaru suñu kaw ndig bi dal xam nga. noonu la demee daal la demee mais. xam naa ne de liñ leen xaañ bari na xaañ na <laughs> xaañoon nañ la fi fi signature bi ah fi ci moto garga moo sa ko fi yéen dafa mel amuloon galaaj bi ante non moom laa la ni dañ doon def loo xam heure ma ñëw si làmb damay gaañu gaañu bu métti wala sama combat NCD noonu la demee. nga xool xam ne lii naturelul ay lancette lu mel ni moom lañ dagg sama bëri lancette di def nii ba gars yi naan ay bëy jël na takk ma ne non non c'est que buñ xam naa. kon nag boobu loolu mystique mooy yow mooy ma ñëwee bii passé tamit gis nga sama loxo bi ni mu tolloon pël gis na ko pël ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ñoom kii Fatima yëpp dañ koy gis ñeneen dañu ne ñun ñi ma ne ñun ñi jaruñu werante fii fii jaruñu werante parce que fii li ñu gëm lañ gëm ñu gëm gëmuñu ko voilà Sadio Mané nii booy bu ndaw keroog la judd suñu raxaati la te mu ngi nii gisoo ko ama lu la lañ koy wax loolu rafetul foo ñi nii nekk nit mais nag da war a xam ne yàlla dafa am ñoom dañ leen bind si àdduna bi ñuy wax rek ba seen heure jot ñu dee am ñoom dañ leen jund dañ leen dañ judd pour nekk dara donc ñi ñooñ noonu moo leen tere wax sew la dem toog yow nga def li nga war a def le 9 mars 2024 mbokki Sénégal ñu ànd ak Ndiambour production Iliman loo nekk ca bopp indi indil lu grand combat bu mag ñaari espoir ñaari ndaanaan ñaari jàmbaar ci diggante Feugeula bu Ngor ak Jeex Jàmm Iliman ne loolu mooy première édition drapeau Cheikh Kanté ministre suivi du PSE mu am taxawaay bu mag bu mu am ci région bu Fatick combat spécial bi wara a dox ci diggante Ardo ak Bib Diop première édition drapeau Jaraaf Doudou Ndoye bu Yoof Libidor bu Passy dina fa jàkkaarloo ak Bébé Balla Junior drapeau madame Ndeye Ndira Faye Kaba doomu yoof dina fa jàkkaarloo ak Mbaye Vandam première édition drapeau Iba Mar Diong Ibou Diop numéro 2 jàkkaarloo fa ak Ké drapeau Cheikh Ami Gueye femme d'affaires sponsor yi gunge Ñambour production ci bës bi bokk na ci Clara Global Business indil ñu diwlin cadeau mbokk yi amateurs yi ñu ne dañ leen di yombalal dugg bi supporter 2000 francs amateur 3000 francs loge officielle 5000 francs kon bis baa ngi noonu mbokk yi tat bi benn la le mars ci arène nationale ñu ci ak Ñambour production